maa ngi tudd Ibrahima Fall di adjoint maire mu santoon woon nu ñu ñëw euh, ànd ak sunu partenaires yi waa ICG pour def le lancement du programme quartier propre mu nekk programme bu am solo su ñun parce que programme la boo xamee ni population yi dañ koy sentir seen biir parce que l'objectif mooy ñoom ñu gis ni seen cadre de vie mi ngi amélioré ñoo ngi nettoyé ñoo ngi bale ñoo ngi dindi mbalit yi ñoo ngi désencombré parce que ñoom aussi loolu lañ si am te loolu mu nekk loo xamee ni suñu taxawaay la ñun mairie ñun lañ ko dénk mais buñ la dénkee da ngay xool say jumtukaay mais aussi xool ñi nga xamee ni mën nga lënkaloo ak ñoom ñu jàppale la nga mën a def liggéey boobu tey ji nag ñu am si taxawaay bu am solo ak waa c ñoo ngi leen di remercier au passage ñu ñëw fi tey ak liñ fi war a indi yëpp si wàllu moyen si wàllu moyen humain si wàllu moyen matériel pour ñu mën a def ce programme c'est un programme du point de vue géographique euh, qui couvre euh, la zone Nord Foire waaw zone Nord Foire Jàmmalaay Jili Mbay ak APEXI si phase bu bu njëkk bi après yeneen phase yi dañuy progresser dem ba biir Yoff terminer tout la commune donc ñu gis si taxawaay bu am solo délégué de quartier yi euh, population bi jeunes yi famille Euh, taxawaay boo xamee ni aussi ñoo ngi koy rafetlu parce que taxawaay bi day ware ni liñ leen di defal intéressé na leen et que bu ñu liggéeyee ba mu jeex ñoom dinañu mën a taxaw continuer liggéey bi loolu aussi ñoo ngi leen si ñaax si loolu parce que am na solo trop parce que il ne sert à rien quand même de ñu def liggéey bu am solo ñu yeewu suba après ñëpp taxawaat jàppaat seen loxo mu mel na defatul dara donc il faut que population bi jàpp si pour que programme bi bu bu retiré woo ñoom ñu mën a continuer pour que quartier bi ne continuer di nekk un quartier un quartier propre. weer yi wees gis nañu njiitu réew mu lancé benn benn campagne bu ñu tuddee Sénégal zéro déchet est-ce que ci phase continuité boobu la doon parce que boobu ba léegi euh, euh, maanaam gisuñu ñoo xam ne ñu ngi koy wëyal programme boobu. waaw xam nga euh, lii ñuy def nii moom ak li nga xamee ni moom la président lancé woon lii ñuy def nii continuité la parce que rôle Euh, njiitu réew euh, si wàll bi mooy mu joxe orientation bi wane yoon bi wane na yoon bi lancé na ñëw na sur le terrain mais ñun ñi nga xamee ni ñoo nekk à la base au niveau des collectivité locale au niveau des quartiers ñun ñoo war a continuer jël le relais li ñuy def nag ak la mu lancé woon presque c'est la même chose ça en droite ligne di koy remercier au passage si taxawaay boobu ak initiative yooyu mu jël ñun nag euh, sunu sunu mooy taxawal sunu gox taxawal sunu gox def la tout ba sunu gox rafet set te défi bi mooy sunu zone bi daal bëgg na nu bu ñu paree mooy gën a set si zone u Ndakaaru Njaay yëpp donc loolu moom la ñu ministre Abdoulaye ju saar sante nii def leen le tout ba bu ngeen pare vraiment mu nekk set boo xamee ni fii mooy gën a set si si Ndakaaru donc loolu objectif la mesure barrière yi moom Euh, sotti seeg daf si la rek parce que fépp fu nu wax ni feebar am na fa am na taxawaay bu ñu war a am mu di ay port de masque respect de la distanciation physique lavage des mains yooyu yëpp foog ñu wax fa set set nag dafa dafa dafa ëmb lu bare du raxasu rek du sangu rek mais aussi sa environnement nga setal sa cadre de vie nga nettoyé yooyu yëpp si la bokk donc tey jii si wàll boobu lañ nekk donc euh, sotti seeg daf si rek quoi. voilà merci beaucoup. ñu ngi leen di gërëm di sant ñu ngi wax ci tur yi APEX yi APEX yi les quartiers APEX yi les cités APEX yi. APEX 1 écologie APEX 3 di saluer initiative bi euh, maire jël en rapport avec euh, l'UCG vraiment parce que am na ko ko wax léegi mënuñu wax santé te. réglé wuñ problème salubrité mu ne defar ay tali électrification ay ay dalas mais su la su su insalubrité bi installé woo du jëriñ dara surtout que nag en cette période de Covid. donc vraiment c'est c'est venu à son heure ñu ngi leen di remercier bu baax di remercier le le le maire son adjoint est là Ibrahima Fall il a été très très très très ouvert et réceptif vraiment jaar nañ ci cité yëpp daf daf daf daal di daf xool. zone yu ñu war a pour jéem leen nettoyer daf ne ko on nous a montré léegi le document boo xam ne moo ko moo moo ça a été sanctionné par un document boo xam ne lire naa ko léegi vraiment ñu ngi am yaakaar lool les on fait un appel rek mooy lan la mooy qu'il y ait un suivi yëf yi suñ ko defee te amul suivi du am benn njëriñ sinon c'est une très bonne initiative que nous saluons au nom de tout toutes les cités APEXI ngeen di gërëm di leen sant